kay sëñ Fallou Mbacke ibnu Serigne Touba Xaadim Rasul yàlla na ko yàlla fayal bu baax a baax ndax jëfam ju di ñaanal sëñ Abou Mbacke xalifam mu yàgg fi loolu mhm. mhm. te ànd ak wér sëñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaax yàgg fi loolu te ànd ak wér moom sëñ Fallou yàgg fi loolu te ànd ak wér moom sëñ Jili moom sëñ Fallou yàgg fi loolu te ànd ak wér sëñ jili fataa falelu yàgg ak wér képp ku bëgg lu baax sëñ Muntaxa Mbàkke yàgg fi loolu te ànd ak wér mhm. euh, ci lim ba li mu bëgg a liggéeyal maamam moom ci lu kawe njortam incha sëñ Modou Kara turandoo euh, sëñ Modou Kara yàgg fi loolu te ànd ak wér sëñ Abdou Samane Mbacke Soye bi yàgg fi loolu te ànd ak wér sëñ Abdou Bassirou Mbacke Abdou Khadre yàgg fi loolu te ànd ak wér ak képp ku bëgg lu baax rek hmm. bépp xalif général bépp kilifa yàgg fi loolu te ànd ak wér la euh, yéen ngi ci studio sëñ Fallou ci biir Tektal TV da ngeen abonné Tektal TV ci YouTube bi Tektal TV TEKTAL espace TV émission bu ñëw nga am ko Tektal TV ñuy dalal koo xam ne que fu ko dalalee day yokkaat ku weddi woon sëriñ di nga ko gën a gëm ku doon mere sëriñ mer ba dina wàññeeku wala mu deñ ku doon wax di maas noon gi di nga xam ne kii sëriñu royukaay la te ñi jaar Tektal TV wax naa leen nag ñi waxi pénalité toj toj yi ñemewuñ jaar fii parce que fii moom dafa am dëgg gun fi imposé mu tege fi da nga koy man ñu dem ci boo d'accord dëgg ki tamit dem ba ci biir nga génnee bukki tànki bukki ñu génne tànki bukki rek waa denc supprimer say émission waaw parce que daal jàmm lañ bëgg kuy jariñ nit ñi sëñ Modou Kara Lo yaa ngi ci Tektal TV sa télé émission Tektal euh, sa émission nga xam ne que duñ doyal ci di la invité askan wi seetaan tamit duñ doyal ci yow ndax ngëneel bi nga xam ne que moom ngay waxee doo wax ba pare ñu ne jaay bi doon wax doo wax ba pare ñu ne dof bi doon wax doo wax ba pare ñu ne borom fit doon wax doo ba pare ñu ne kii moom li wax fan la ko teg kilifa xalif général bi sax mën na seetaan sa émission ndax teggi gi ak yar gi ak xam gi ak maandu gi ak dal loolu nuyoo àdduna wër nga ko bi lay seetaan aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala wa maulana muhammadil amin wa ala wa ashaabihi sawi ridwaani wa tamkin salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki àdduna ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla suñu borom defal ñu jàmm di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu borom may fan gudd lool wu ànd ak wér ba màggale naa leen ci lislaam ñu ànd koog moom yàlla mën na ko yàlla nañu ko defal noonu lañ koy ñaanale mboolem xulafaa yi fu ñu mën a nekk ci kaw suuf yal na yàlla sàmm leen yal yàlla aar leen sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel Tektal TV fu ñu mën a nekk ci àddina rek ku ci ne ñu ngi lay nuyu di la ziar. macha allah jërëjëf moo tax instant télé di seetaan waa diaspora yi am na ñu nekk ci biir métro yi tubaab bi yéeg sax seen woon ne mi ngi yéeg ndax lan Tektal TV daf leen ñor domaine bi ñun déggoo li ma la wax de France 24 yabuñu ci BBC yabuñu ci télé yabuñu ci. Mhm. national bi nag ak ñëpp international ba ci am domaine bi koo miinee ndax ba ñu jóg du léegi du sëriñ bu ne. Euh, la ñuy toogal ñun noonu toogal ñun yaa ci yokku de bu dee yor nga njariñ nag te fas yéene jëf wéyee njariñ kon dee leen wuyu seen i téléphone di laaj lu leen neex te jëf jër bu jaar jëf bu jaar yoon ndax tamit client ak sëriñ toog ci néeg tënk seeni soxla pare client ba jekk jékki woo ne la nii rek nga baase wu ca di yab sëriñ ba boobu ak yabaate la da ngay tey li may wax rek lu waaye waan di wax rek ma def ko audio transféré ko borom. Hmm. xool fu solution nekk ñu feeñal ko parce que li ma pël solo mooy jaam ak salaam rek di leen wax tamit. ku fi tubaab tubaab wala nga dégg ñooñu nga xam ne que dañuy dal ci kaw sëriñ si maanaam dal ci kaw sëriñ si ci la ñuy dund nga basé wu ci seen wax ba seetaan sa yaram ba ceddi jàpp la Afrique ban liggéey la ba nga tëdd mënoo jóg yorotoo ba nga ñàkk boobaa di nga xam ne tegtal am na njëriñ toog leen foofu dafa am ñoo xam ne que nii ñuy wanee njëriñ ñoom wan ne kenn baaxul ci ñi ngeen di gis ñoom ci la seen bàmba dinaa pour ko boo defee seen sëriñ soosu mën a suqali ko mën a dund. di di doon nante de da lay bëgg yee far réeral la. bàyyi leen xel bu baax ñun nag dana joxe numéro yi mu leer ñu wax mu leer mu doy la nga jël mu doy la yaa xam man wax bi du neex amul maslaa parce que ma intérêt ci yéen lu dul indi leen lu baax tegal leen ko ngeen man ci faju faj ci seen soxla ak seen njaboot kon nag kenn du ma ci am ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax Tektal TV sëñ Modou Kara Lo parce que léeg-léeg dafa am ñoo xam dañuy dund ci wax sëriñ si ngeen di gis baaxul. Mhm. te génn ci tele bi jëriñ junniy nit moo gën toog sa kër jëriñ téeméeri nit. waaw jërëjëf sëñ Cheikh loolu lu am solo. Mm-hmm. ndax boo xoolee ci jamono bi. Mm-hmm. da nga gis nit ñi naan sëriñ yi génn ci télé yi. Mm-hmm. wala ñi nekk ci internet bi. duñ ay sëriñ. may leen loolu gàtt xam-xam foofu la tàmbulee ndax euh, bu njëkkoon imaam yi nga gis ñu daan jiite nit ñi sax daawuñu génn ci télé yi. daawuñu génn yi noonu mais jamono moo ko laaj. te jamono bu ci nekk kenn ku ci nekk. li ngay dund am na ñu la jiitu woon doon ko dund yàlla defal la ci xéwal yoo xam ne ñoom amuñu ko woon ndax jamono moo doxe noonu ndax tey ki nga xam ne ab sëriñ la ne ci télé bi wala mu ne ci kii bi génn googu mu génn mag ñi bu ñu ca jotoon def ko mm. ndax boo demee seeni i biir xam-xam te nga cay fekkee xam-xam yu ñu teg yoo xam ne ñoom lañ ko daan jëfandikoo mooy pour bëgg nit ñi xam leen kon ñoom bu ñu jotoon ci kay ñu mën leen a génn léegi dañuy dem génn rek mu gën a gaaw kon nag génn ko googu ngay génn muy mën a jariñ ndax nit ci boppam xëy na ñuy génn ci internet bi télé yi am na ci ñoo xam ne boo jëflanteek ñoom tam mm-hmm. ngay jaare gëm sëriñ bëgg ko ba faw mm-hmm. am na ci ñoo xam ne nag sax génn ñu mais boo jëf jëflanteek ñoom xeb leen moo tax léeg-léeg nga gis ku naan du ma ñaanlu sëriñ bu nekk ndakaaru mm-hmm. waaye sëriñ moom du ndakaaru la ne wala ci benn dëkk wala benn maanaam ci jëmm ji lay nekk jëmm ji waaw loolu ko wax loolu nga déggaat la Dakar kenn waaw waaw léegi nee na Dakar kenn dëkku fi. waaw kay kon daal boo nekk Dakar baaxul mais boo toxoo. waaw dëkk yi baax boo demee feneen baax na. waaw léegi boo dëkkee <laughs> ba 2021 nga dëkk ci àll bi. 2022 hmm. nga ñëw Dakar baaxatul. loolu lay teg waaw euh, léeg-léeg da nga gis nit koo xam ne moom danay jàpp ne fee kañ la am sëriñ mm-hmm. mooy su demee foo xam ne avant mu fay àgg sonn na mm-hmm. yéeg nag wàcc di mu jaar ci suuf si ganuus wala muy fanaan daj ay coona foo <laughs> moom na ne bu àggee am na sëriñ léeg-léeg sax nit dem ci loolu ba xam ne te lañ koy jox yow romb nga sëriñ boo xam ne la mu yor kooku yurul mm-hmm. maanaam lam li ki nga romb li mu yor te ka nga fekk yurul loola waaw te loolu nit ñi dañ laa koy dafa am benn sëriñ bu may invité sëriñ ci côté gam bi am sëriñ loolu waxtaanu suuf la maa ko yóbbu ci kaw kenn du xam kan la mm-hmm. sëriñ bi am kum dégg ñu ne ko kii ci ñi doon ñaanal yaay jàmmi la xawma nangam kii nangam buur yi ku ne la kii mu dem ba côté gam yooyu fekk ko fa mais ba mu demee <laughs> ñu laaj ko cinq cent mille mu joxe ko mais après gis na ne moo ëppale kooku bagage sax la mu yor kiiwu ko ci la toogaat gëmaat boppam dem toogee fa mu toog nag continuer liggéey man si gis mm. naa sëriñ yu bari yoo xam ne mm. dégg nañ nit dem ne dañ fa dem dolleeku ci xam-xam ci ay réew mm. te bu ñu àggee dañuy xam ne ñoom lañu ñu yor ci turu yàlla di ko liggéey kee yorul asaka ji sax yoru ko kon nit ñi loolu war nañ ci yow te bàyyi ko xel bu baax a baax xëy na sëriñ yi am na ñi mën a jëriñi ñi ngi fi doomu aadama nag ku wax da nga xam arab bi dañoo xam ne takkallam tonraf boo waxee ñu xam la léegi nit na comme yàlla may na comme xel muy xalaat ñi fi nekk bari nañ xoolal rek kalal doy nga dem ca sabab te xam na yàlla mooy sottil yàllaay sottil waaye tiiwul na kenn ku ne nag da ngay am sabab na yàlla mooy faat waaye nag ki jël paaka wala fetal jam ko nit kooku mhm. dafa def sabab bi kon sabab bi lay tax loola amit da ngay xam sabab ba nga jaar ca loola nga mhm. di leen wax tamit ngay dégg ñu naan génn ci télé bi pour pourtant gàmmu gi bu am dañ koy yëgle ci télé bi màggal bu amee dañ koy yëgle ci tele bi màkka bu amee dañ koy yëgle ci télé bi mm-hmm. agence mm-hmm. yi yóbbu nit màkka rek ñoom xam nañ loolu mm-hmm. dañuy ak agence bi seen publicité yëpp nit ñi ràññee nañ ko nu mu ubbee sax ah, léegi kon gén télé dafa aram wala li ma leen di wax toog ci télé wax lu dul dëgg baaxul toog sa kër wax dëgg baaxul dëgg la tey euh, dëkk ay Ndakaar yooyu yëpp ay deuxième la da nga seen sëriñ ci télé pare bëgg na la indil ma client yi man du indi indil kenn client de man damaa gëm boo yoree njëriñ nga wane ko comme doy mu ñëw fekk yaa ngi continuer ci dëgg dëgg ni continuer ku deful dëgg na da ngay wàcc deuxième division sëriñ bi profitoo jàpp na métier bii moom 2021 2022 2023 la war a yem foofu la yëpp mais ki ko ba xalaat ak njabootam aw ko dam ko aw mhm. kon ngeen bàyyi xel loolu bu baax a baax ay waxu terre te ñii ngay dégg ñu lay conseil nan ah da ngay jàpp rek bàyyi sa dañuy jàpp ba pare boo làmbee seen digg yi ñu ci bari duñ accolade xam na buñ accoladé seen téere yi jam la te ñoom ñoo lay wax naan la moytu déedéet yow de ndax am na yoo xam ne eh, amul kuy ndamoo damaa bëgg sëriñ ji amul kuy ndamoo damaa bëgg sëriñ ngeen bàyyi xel loolu sëñ Mourou Kara Lo mm-hmm. fii nit ñi foo dana fa dafa bari danoo gëm sëriñ bay bëgg ba pare di ko ignorer na di kii yu mel noonu ba pare di tubaab tubaab lu bu ñu mel na ku xamul dara fekk xammee nan yi ni sangoo ci kaw fu kawe xammee nan yi ni sangoo guddi xammee nan yi ni sangoo mu yëg xammee nan yi ni sangoo mu wàcc ba pare di dof dof la pare di la conseil naan naan kii mel noonu nan nga seen kenn ñëw ne eh, yow sa gars yi sa gars yi yor ay malaaka man ñu yor lu baax laa xam parce que du ma dama jàng alxuraan. xam ku yor bagage bu man et puis naa leen sëriñ bi ma mas a gis mu gën a rëy ci li ma yéem ci àddina mooy ka ma mas a gis mu ne sàngara lay seete bis boobu damaa yéemu ci àddina te kooku ñëwul tegtal mosuma ko invité man yoru may xërëmkat yoru may njabarkat. yoru may ay ñuy rey nit ay naqare yàlla day am ak neex yàlla day am déedéet man ñoo xam ne que ci alxuraan la ñu basé wu tàmbalee ci alxuraan yam ci yeneen yi nag ay garab la te garab nag. Mhm. mook alxuraan nga xam garab yàlla mhm. ngeen comprendre ko ñàkk dégg daaj. mais am ñoo xam bu dee sunguf la sax tam ñu xeebaale ko dafa fekk ñàkk xam li mu war a bari mhm. loolu ñi ñi tuuma yi sëriñ di am dafa bëri te maîtriser ko ñeneen ñi. waaw bari na lool moo tax sax ñi nga xam ne li ci ëpp dañuy xas sëriñ yi. maanaam dañuy bëgg a xas ñëpp ba pare génn ci seenub sëriñ ñoom. génn ci seenub sëriñ. ndax mm-hmm. dañu am sëriñ moo tax dañuy wax wax boo wax jee jeexal. waaw ne waaye du ñëpp. waaye loolu mooy seen sëriñ moom bu ñu seek moom rek boobu lañ ko may moom xam na ne moom ñoo baaxle. ñoom kon kay nit bu fekkee day gëm. Mm. maanaam waaye lii laa gëm weddi lii. Mm. xam nga lislaam moom da ngay gëm. da gëm boo gëmee nag am na sax kuy woote woo lislaam te fekk du ab jullit. Mm. loolu alxuraan moo ko kon su ko defee ab sëriñ moom nañ xam ne lu am la te lu wér la sëriñ boo xam ne dafa jaar ci nuuraaniya mm-hmm. jaar ci li nga xam ndax léeg-léeg ñu gis nit koo xam dafay toog maanaam di xas sëriñ bi mm-hmm. wala mu naan dañu war a jaam te sëriñ bi li muy mm-hmm. ñuy daw jëm waxtu bu nekk mooy jege yàlla ndax li ñu li ñuy xëy di ko liggéey siraatu ala nabi li ñuy def ci istixfaar bis bu yàlla sàkk dañ koo saxal suñu dund comme ni ñu julli farata waree bu dee alquran noonu comme bu dee lu baax mënoo ko ci ba pare moom mi ngi daw dina feebar ay at ba jàppoon ne du jóg nga dem mm. faj ko waaw léeg-léeg nga si waxoon danaa waa sëriñ yi dañoo war a wuti métier te médecin bi kat loolu di métier am bu malade bi faj ko yi am ku feebar bu demee hôpital du biir mu ñëw mu delluwaat loolu kay du métier lu mu doon mi loolu ak tamit bëgg ñu def ngir yow nit ki nan lay jànge xam-xam di bu laajee weexal mu weexal bu laajee ñu bindloo ko te duñ ko fay ñu def ko bu laajee ñu mm-hmm. liggéeyloo ko te ko fay mm-hmm. yooyu yëpp mu ñëw yor xam-xamam nag joxaat koo jaam yi toog la da dem wuti dépense pare métier la ñun fa la ko ngeen bàyyi te di leen wax tey seen sëriñ soosu ngeen tey ci côté ci côté di ci dunde ci gàttal indi leen kii boo xam ñooñu de bu bu bu ñëwoon fii dun doon taalibe yu mag yi sax ci taalibe yu ndaw yi la di bokk gënuñu ko mokkal alxuraan mhm. gënuñu ko ëpp xam-xam gënuñu ko lu mu ko dàq rek mu ñëw il fallait que ñu xam ne Tektal TV caaxaan du fi jeex mhm. émission bu mat fukki ak télé bi di dem ñëw ubbi télé yu mag yi sax ñu gën ne la ëpp doole ci domaine bii ah loolu dëgg la bu heure bi dégg ngeen ci leneen man nag tey lu waay man di wax bëgg naa ku sa wujj sëlam doo set. Mhm. ku la ñee nag mooy loolu. moo tax yenn li naan yàlla doyal kenn am noonam man de samay asmaa tawil laay jàng rek. du ma leen au lieu que ma naan sëriñ bee may ñaanal ak yooyu sama asmaa tawil laay jàng lu la neex wax ma nag ngay xëy di gën a xonet rek di ñàkk rek affaire yi jàppale nag nga xoboo lan la fekk am na ko yàlla teral nga bëgg mu torox sa jëf ngay dajal ak sa yéen. Mhm. sëñ Modou Kara Lo léegi dama bëgg ñëw nag ci comme waxkat yi. Mhm. nii ñuy waxee. ak yéenekat yi noonu lan capable nag yàq nit mhm. ak yàqal nit mhm. ak yàq ko ci saayir mhm. ak ci baatin ak liggéey ko ak yëpp kun liggéey ba mënul am liggéey ak kun liggéey ba mënul jóg fi mu toog ak kun liggéey ba mënul lijjanti dara mu sotti ak kun liggéey ba njabootam du mel ni ko neex yéen ñu xeet googu yëpp kaaraange bu wóor blende bu saf-saf ku dóor mu delluwaat. parce que ñu soxor ñu dëgg. sax bu ñuy wax dañ lu waaye dóor mu dellu ci wax. man daal waxuma baat boobu sax bëgguma di ko utiliser lu waaye dóor mu dellu ci kawam. mais ku lay jéemal dara lu bon. du mën ci yow dara. bu ko defee lay dal ci kawam ci lu bon mooy temps boobu muy perte. waaw loolu kaaraange ñu ci am. Mhm. dafa am ay façon ay façon comme ñaari nga wax am na ci boo xam ne kenn du la mënal dara. kenn du la mënal dara. am boo xam ne. Mhm. maanaam ki lay jéemal bu la jéemalee. Mhm. ci waxtu wi mu jógee di la jéemal. moom ci feebar lay tëdd. ci feebar boobu moom du jóg. am mm-hmm. mm-hmm. boo xam ne bu la defee dara rek day daal di faatu moo tax léeg bu nit ñëwee. Ah, am faatu tamit. ci lu gaaw boobu kaaraange bu mag bi waxoon nañ ko ci émission bu njëkk ba. Mm-hmm. am na ñu ko jot a mos. mais ah, ah. am na ñu ko jot a mos ñu bari mais bari na nag ba tey. ñoo xam ñu ko jot a mos ba faatu nit kon. ah ñoom duñ faatu waaye damay wax ne koo xam ne borom njaboot nga. wala nga jiite lu bari te am ñu nekk si kaw ndax day ñoo xam dañuy jiite dara Mm-hmm. am ñoo xam dañuy nekk ca suuf maanaam bëgg fa place di leen yóbbu ci sëriñ di leen mystique ah. su boobaa wax leen wax leen maanaam ñu bala fa léeg-léeg nit boo ko waxee loolu mu jàpp ne daf may napp ah. moo tax am nañ ci léeg-léeg benn sunguf boo xam ne ci garab boobu lañ koy desal nga xam ne ku la laal su amee problème boobu man bu ñëwoon ci man mënu ma ko faj keneen mënu koo faj loola la koy jox mu naan su mu wér bu dul du mën a wér moo tax bokk da ci yi gën a dansé mm-hmm. chaque jour damay wax loolu damay wax ne ñaara ngi yoo xam ne dansé la kenn ku ne mm-hmm. war nga ko wattandiku muy jéem a liggéey nit ak fekk soxna jaamu nga bëgg caa am ab safaan. ndax mag ñi bàyyi nañ ci xam-xam yoo xam ne mën nga caa laal dara am ci problème boo xam ne nit mënatu la mënatu laa defar moo tax bari na koo xam ne ci loolu la yàqoo gis nga boo xoolee li gën li ma yërëmi nit sax léeg-léeg ma def ko maam génn mm, di yor sama oto wala dara mm. maam nga daje kenn ci kaw tali bi maam xamul yaay kan mu wax la dara wala mu saaga la te fekk tur yàlla bi ngay liggéey mën naa bañ a baale am na koo xam ne mën na laa bañ a yéene def dara. Hmm. waaye boo ko merloo nga am problème. boo am moo tax loolu fii ne léeg-léeg nit ñëw jàmbat ma jàmbat ma xam ne kii dafa yàqu ci mbedd mi. waaw loolu nag doomu aadama war nañ ko bàyyi xel ñu fexe ba kaaraange tamit. ñu hmm. am ko ndax léeg-léeg fii ne nit day ñëw ci yow. nga ne ko doon kaaraang ne man daal am am rek laa bëgg waaye nag boo amee te muccoo te ko muccul du moo baax loolu mel mag daf daa wax ne doomu aadama lu mu ñaan loo di ñaan loo di war naa ñaan lu loo xam ne daf koy musal ndax lépp mu ngi ci biir mucc moo tax mag ñu bàyyi sax dawuñu xëy mukk ba fi mu ne nii sax amul genn kilifa guy xëy recevoir nit ñi te musluwoo. te musluwoo nit ñi xam ko nga ñàkk koo xam nit ñi gën a fonk ci àddina bi. Mm-hmm. am nañ seen sëriñu bopp waaye ki la ya ki nga xam ne moom nga yaakaar ci yàlla. Mm-hmm. moom am na sëriñam boo xam ne yow sëriñ bi ci boppam kii nga yaakaar ci yàlla. Mm-hmm. waaye ci àddina yow la ci yaakaar. loolu moo am na moo tax ñun sax ni ñuy jëflanteeg ñi nga xam duñu ay sëriñ ñoo lañ kilifa yi. xam nañ ñu xam nañ leen. ndax nangul nañ ñu ñu nangul leen lañ nekk. loolu nag mooy àddina maanaam kenn ku ci ne la ko yàlla may da nga ko koy nangul moo tax danga bari comme li nga njëkkoon wax ku toog ci plateau xas mboolem sëriñ yi tagg yeneen kilifa yi mm. te kilifa yee buñ noppee wëlbatikuwaat ñii diis mm. leen seen soxla mm. waaye ñii tamit ñi ci yàlla sellal ah, ñoo am sutura dañ xam ne lii ñii yàllaa leen defee waaye lii nag yàllaa ñu ko xamal kon nañ leen jàppale ci lii te yaakaar leen bu ëllëgee yow man xayamate ak ba masha Allah mm-hmm. jërëjëf sëñ Modou Kara Lo kon yow ku bëgg belende yu saf-sàpp mm-hmm. ba nga xam ne que kenn du man ci yow dara. Mhm. yooyu yëpp bu mu ci bëgg am waaw bu mu ci bëgg am na fi. Mhm. te seeni sangat yàggul. Mhm. benn fan ñetti fan trois euh, ak euh, juróom-ñaari fan. ci gën a yàgg loolu lay doon. benn fan. waaw am na boo xam ne yoon nga koy sangoo. am na ci boo xam ne ñetti fan lañ koy sangoo am na ci boo xam ne juróom-ñaari fan lañ koy sangoo. xam nga kaaraange suñ ceex maanaam li tax nit ki war ko am. maanaam sëriñ bi lay ñaanal sax. nit ñi bàyyi ko. nit ñi bàyyi maanaam maam am na koo xamante ne nii léeg-léeg mu dégg la yow sëriñ bi ci boppam sax mu bëgg laa wàcce mhm. waaw xam nga loolu loolu lu yéeme la waaw waaw man ab sëriñ jéem na maa wàcce ku ma xam ñëpp xam ko ah, ah. waaw nga xam ne kurus la ma doon wàccee waaye xam waaw ah, dama koo xam ci baat koo xam nga xam ne ñi nga xamante ne ñi ma wër jege moom waxuma lañ ko ndax ba nga waxee dañuy tiit waaw am na ñoo xam ne naa leen diw mi ngi may jéem wàcce te bu ngeen xoolee fan yi de ngeen mën a teg du jamono yi nag xaw naa yàgg maa ngi koy dégg eh? xam na ma xam naa ko te moom xamul ne xam naa ko waaye bu ma déggee dana xam ne li mu wax dëgg la xam nga kurus boo liggéey moo demee noonu mm-hmm. tey suñ ci man bu may liggéey kurus mm-hmm. yow nga yàgg li may liggéey nga laal ko danaa xam ne laal nga ko mm-hmm. yow li ngay liggéey tey boo ko doon liggéey su ma ko laalee di nga xam ne laal naa ko loolu moo waral léeg-léeg boo nekkee ci benn milieu dafa liggéey benn tur bu bu fa gan ñëwee goo xam daf doon liggéey la su laalee loolu yow da nga ne am na ko laal sa denc moo tax mag ñi tur yi ñuy liggéey ndaw mag ñi nga gis nii fii ne nii ñu nekk fii kilifa diine yor nañ ay tur di ko liggéey hmm. moo tax nga gis ndaw ñu bari léeg-léeg di am problème parce que dañuy jékki-jékki dugg ci seenum hmm. bu ñu ca laalee nag boobu mooy ñëw moo tax tur boo ci nekkee surtout ñun nga xam ne ñu liggéey ñun tur yàlla la hmm. da jaar ci gën a fi gën a suufe mi ngi mel ne escalier boo ci yéeg doo àgg rek dem ci kaw da ngay jaar suuf di dem ndànk ba àgg ci étape ba bokk ca tur woowu ñi nga xam ne yaa ko diriger mën nga caa def lu te koo ca folle kenn duutu ko fal parce que da nekk ca kilifa ya. mais bi moom après bi mu la laajee dina ko rëcc wala du ko rëcc. waaw man nag defuma ko dara. waaye damaa fexe mucc sama bopp te du ma mën a dara. parce que li ma laale mooy. Mm-hmm. moom laaluma ci wàllu gi waaye ma laale mooy comme xam nga man ni may defee ta euh, teg euh, maanaam taxaw taxaw ak taxaw seetlu. benn mbir am ci diine ma indi sama jàngat ci ni ko diine gisee. ni gisee xëy na ni ma ko defee ak loolu tamit ma teg ko ci xam-xam mu leer. la mu mm-hmm. wax euh, naqari ko. Mm-hmm. loolu moo sa oboon mu attaqué ma Euh, mu attaqué ma ci baati waxuma ko waaye man xam naa ko waaye mais jégloogul ci saahir parce que du jéego parce que borom xam-xam dafa am ñoo xam dañu rëy dañu rëy surtout tooñ nit ba pare wàcc ci kanamam mm-hmm. waaw mais wax naa ko bi dina xam bopp ah dana ko xam kay ma gisee xam ma dana ko xam wér ndax mm-hmm. borom course la te borom course la du ko ñaareel du ko ñaareel parce damaa jàpp ne nit ku baax mm-hmm. ku ñuy jaakaar ci mbaax doo fekk nit ku bëgg lu baax nga di ko dugg waaye bu dee jamono bu doon jamono bii kay bu ko laalee du du du ko kii. Uh-huh. du ko laalaat sax xam na ma. bu ko seetaanee Tektal TV dana ko gis dana ma dégg dana xam ne kii man lay waxal. Uh-huh. Mm-hmm. mais baal baal naa ko ci xol bu sedd. bu ndax ñun du baal naa ko. Uh-huh. maanaam man lu ñu ma def ba ma xam ko ba mucc rek dama lay baal. waaye nag danañ def loo xamante ni boo ñu attaqué te yëguñu ko man ngaa am problème boo xam ne. Mm. suñ ko yëgoon it baal la. Mm. waaye nag yaa fekk benn mbir mu taxaw rek nga dóor ko. xamoo xeera fa ne xamoo ciment la xamoo suuf la. Mm. moo tax daal maandu daal moo baax te yéen a ñëpp jàmm. ñun mm. yéen nañ ñëpp jàmm. kon sëriñ si ngeen bàyyi xel loolu nii ñuy waxee askan wi soxor ni mu baaxewul fenn la baaxul boo mm-hmm. soxoree. Mm-hmm. da nga nee naa yi nga du fi amee te yàlla moom sa maam yàllaa ko yilif maam maamaatam yàllaa ko yilif. Mm-hmm. sa maam ak yàlla boobu ay dogalam nga ne du am da ngay sonn. da ngay bàyyi leen xel te gëm yàlla. rafetal seen xol yi nit nag li ñu wax boroom yéene ju baax moom boroom xol bu rafet yéene ju bon rek lay fanaanoo bu xëyee pour bu xëyee def ko mais du ko mën ndax lan dafa baax mhm. boroom yéene ju bon yéene ju baax rek lay fanaanoo pour bu xëyee def ko du ko mën ndax lan dafa bon kon jéem leen a baax seen te yàlla mosul ci jigéen ñi fi am doom yi fatt nit ñi ñu baaxul ñi mhm. waaw kenn ku ne daal fexeel ba am yaay ju baax mhm. fexe boo xasee am yaay ju baax nag say doom yi nga indi leen euh, beneen waay yaay ju baax rek wala lu baax. Mhm. bu ko defee lu baax di law lu bon di disparaître looloo gën. Mhm. mais soxor moom man façon défaut yëpp ci àdduna. Mhm. ku soxor laa ci gën a mën a mën a mën a muñ. ma xasee xam ne da ngaa soxor moom seqatul masla waxuma nga soxore ma de ma xamee da ngay soxore ku baax rek man mere naa la te dara xewoo ko. kon ngeen bàyyi xel rafet yéene bu baax a baax. kon daal mais kaaraange ji boo ko defalee nit tamit ku koy jéemal comme bii nga di am ci sëriñ bi bu mel moom bi ma ci yoraat nii moom ku la laal day yow da nga yëg ne laal na la parce que da xam ne kii li ko dal nii. Mm. man la laal. am na ci ñoo xam nag bi ñu bëgg mooy ku leen laal du leen mënal dara. Mm. waaye daal bu mag bi moom mooy ku la laal yëg ni laal na dara. Ah, bu waaw waaw boobu moom boobu moom mi ñu dañ la fi bàyyi de. moo xam moo xam koo xamante ne jaarul ci leer la ci nuraar ya mm. moo xam fi séer la ñëpp mucc nga ci ñoom. mucc nga ci waaw. te xam nga benn sang la wala. Euh, ëpp na benn sang xam nga suñ ci fi mu ne nit ñi. Mm. kaaraange fi mu ne boo gisee ñu bari bari amuñu ko. Mm. mooy dañuy fekk koo xam ne la mu dajale. dafa nuru loo xam ne zulmaani yu la. ñu jàpp ne kii moo mën a musle. dem ci moom finance fa seen xaalis bu bari te amuñu kaaraange. kaaraange dëgg. alquran la. kaaraange dëgg. Mm. turu yàlla turu yàlla bi gën a tàng ci turu yàlla yi. Mm. ak aay am na aay yi fi mu ne nii am na ñoo xam ne ñoo gën a woyof. Mm-hmm. yooyu ñooy kaaraange dégg dëgg ak garab yi nga xam ne ñoo gën a wex ci garab yi fi ne am na garab yoo xam ne bàyyi ma du leen lekk. am na ci xam ne jigéen ñi toll fenn du ko naan mm. am na ci yoo xam ne jigéen ñi toll fenn du bokk moom tëdd am ne kon garab yi xam nga am nañu te am na garab goo xam ne jigéen dana toll fen tëdd ci ronam ba am doom te du ko wàññi dara mm. kon euh, seen euh, degré dañoo wute mm. kon loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax ngi daal képp ku ko bëgg muy góor wala jigéen mag ndaw boo ñëwee insha allahu rabbi daañu la ko defal ba nga sant yàlla waaw ak sa njaboot yëpp kon da koy assuré waaw du ci yow waaw yëpp koy yem korte lépp dégg sàggan ba liggéey ko ba pare nag hmm. léegi xam nga kii moo kaaraange bii ngay wax. moo kii protection ki bëgg a mucc. Hmm. léegi nag kii sàggan nag mel ni nekkul Afrique ban jekk ko ba pare nag. fi mu ne kaaraange bu mag bii ma lay wax nii. Hmm. li tax mu wuteeg yeneen kaaraange yi. lu mu fekk ci yow da koy rocc. da bu dee liggéey da koy dindi. bu fekkee yow bët bu aay la gàllankooroon. wala cat da koy rocc. da koy rocc waaw parce que moom dafay sekki. maanaam maanaam diggi sump yi ci misaal rek mm-hmm. am na ci boo xam dana ànd ak moom san onze xam nga dégg bu njëkk nit ki dana am lu ko dugg dégg ko daan sekkee dindi ko moom dafay mm-hmm. sekki ci boppam su ko defee nag ki nga xam dafa dañ koo liggéey ba noppi su ñëwee dañ koy xoolal mm-hmm. suñ ko xoolee xam liggéey bi rek incha allah ñu defal ko ko mu daal di dañ ak liggéey bi nag ci lu mu jëm ndax boo demee ci borom xam-xam bu tudd uh, bi taalif uh, téere bu ñu wax uh, wexaatu insaan minal jinni wa shaytaan liggéey bi ñu koy liggéey. Hmm. nee na léeg-léeg doomu liggéey la ba noppi jaare ko ci jinne maanaam koo xam ne dafay dafay neexal ay jinne ci lu naqar yàlla. Hmm. liggéey la jaare ko ko. Hmm. kooku moom dañ koy defal nit mu dal dañ incha allah te lépp alquran la. ma allah kon bindal bindal maire boppam paa bi tamit bëri neexul ki wax ci salle bi mu noppi numéro Serigne Modou Kara Lo dafa 77 750 22 60 77 750 22 60. waxuma cinq cent soixante waxuma sept cent laa wax hmm. ñetti sept ngay jiital bu pare teg ci cinq waaw def zéro sept cent vingt deux soixante beneen bi soixante seize trois cent quatre vingt seize cent quatre vingt quatre vingt un Serigne Modou Kara Lo nekk ci Tektal TV boo soxlaa numéro moo nekk noonu ci écran bind bi leer na dijj na te yaatu na defe naa sa bët yi moo am problème mais man li ma wax leer na nañ mhm. léegi nag mënoo seetaan émission ba mu jeex nag nga woo ma laajaat a sonal bu dee da nga woo ma bàyyi heure bu ma ko ma waxaat na ko temps boobu tamit tubaab duñ ko foowee quoi moo tax numéro numéro Kara Lo léegi booy nekk ci Kër Massar fi ngay nekk nan la boo koy la waaw fi may nekk mooy fi ñuy wax euh, arrêt Jamil Karo. arrêt Jamil Karo. bu fekkee koo xam ne waaw ci côté Auchan bi koo xam da nga jógee côté Auchan bi côté euh, rond-point bi. Mm. da ngay romb Auchan bi. Mm. boo rombee Auchan bi rek euh, ci première mbedd bi ngay jotaat. Mm. su ko defee à gauche foofu ngay jàdd. boo taxee boo wootee jël si su la neexee tamit ba ci première boutique rek. bu la neexee nga laaj borom boutique bi bu la neexee nga jàdd boo jàddee deuxième kër mooy kër gi. bu fekkee da nga jógee comme Sédiment. doo accès ci Auchan bi. booy seen osan bi rek ci fi ñu wax jamil karo di nga ko seen mm. nga jàdd euh, à moom itam même noonu bu dee tuubaa ñi ngi Madiana ci marché mbaari ku fi taxaw woote ku neexit boo ñëwee bu foofu boo laajtee foofu ñëpp xam nañ ñu incha allah dañ leen di ma nga agsi jërëjëf seet moom yàlla xam xam moom xam na ne yàlla cëral na ko ci mm-hmm. kon nag te nekku fi duy ñàng yooyu noonu de moom day seet ba man laa audio lim la seetal nga mën ko transfert fu la neex ci àddina bi moo ngi nii kon ñëwoon ci sa degré seet ñi wut seetkat bu mag bi 18 heures ñuy ñi dugg fu ne dem fu ne déglu dugg ci gàllas bu yoonu métti pour wuti ku la seetal mm-hmm. nga naan kii wax ma seeti yomb yi de ay lijjanti kéet ay yaakaar muy tas ay euh, ku gàtt ki kan la ku njool ki kan la yaa ngi ci mbir la yaa ngi jàpp yoon yii yëpp man nekkuma ci amul ku jàpp du yoon saa boo dem boutique ba sax jàpp nga yoon amul ku yaakaar mu dul tas ah mën ngaa jëm boutique ba sax boutique boobu bu fekkee aju ma mu mu yéex a tijji la fa doon wuti sa yaakaar kon yaakaar day tas mais waxuñu yu mag yi euh, yaa ngi lijjanti kayit photocopie carte d'identité sax lijjanti kayit la ah euh, daa mel ne doomu kilifa nga de kan mooy nangu ne waajuram du kilifa ah, yooyu yëpp ay yooyu il faut que ñu bàyyi ko xel léegi nag bu la waxee nag sa rawaan ndox la sa lii nangam kii lii moo kii lii mooy sa problème ñu wax la loo xam ne lii leneen du làmbkat du làmbatukat léegi da ngay dégg tamit nga seet ñu nga naan lii de mas na ko wax ci seet kon rek la njëkk a seetal ay na mhm. kon xam nga sa li jënd ko mhm. danoo bëgg seet boo xam ne que da lay li mhm. ñëw ak li sa farata ca sa dégré seet ñëwaatal ci seet bi nan la waaw li nga wax lu solo ndax seet moom képp ku ci utilisé tamit ki nga toogal moom wala ki nga seetal dana ko xam moo tax dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax hmm. euh, ndax weesu nañ ci foo xam ne dañ naan mën hmm. nañ ko mën na ko maanaam nit ñi ñooy wax ne man na ko mën na ko man nit ñi mooy na ko man na ko ah. ndax bi set nit damay wane ma di ñu boole ci hmm. wàllu seet ay nit dus bu yàlla ñu ngi sant yàlla moom bu baax a baax yàlla dañu cee may xam ne duñu ko làmbatu euh, li nga wax nag léeg-léeg sax ne la dama ma looy seete ma ne ko loolu amul sens. Hmm. en tout cas daal du ma seet ci lu xaraam. lii sa daal danaa ko xam. Hmm. te euh, ba tey maa ngi wax ne képp ku ñëw di seetlu bul ma wax sa problème. bu ko wax problème waaw bu la wax hmm. sa problème bu la neexee nag fekkente ne da ngaa bëggoon lijjanti nga daa am lu may lijjanti bu la neexee man dugg ca loola ba mu jeex tàkk. waaye war a seetlu ci nit ñëw jigéen bu gisee borom këram changé am changement. bu ñëwee di la seetlu jur mu fi nekk naan sama waa ji daal. waaw te damaa gis ne loolu. loolu moo tax fi ne loolu dama ko bañ. dama ko fi ne léeg-léeg sax nit ñu wax ma nangam moom laa bëgg mën a ko jërutul nga koy nga koy seetlu ndax yow comme xam ko ba tudd lii la. loolu kon la laaj seet. Hmm. mag ñi dañ ko daan tudde ay tegtal mooy comme émission bi tegtal maanaam li nga xam ne yow lënt na la nga hmm. bëgg ku la ca tegtal lu leer hmm. ba nga xam nga xam fan ngay teg sa tànk loola lay jëriñ wala ñaari mbir taxaw na ci sa kanam. Mm. ñaari mbir yi kat nga bëgg xam ban moo ci ëpp avenir ci yow. ba mm. boobaa nga jéem tànn booba dal cay dem. su ko defee boo gisee ragaluñ ci euh, seetal nit mu defal ko ko audio. Mm. muy dañu bëgg mu leer ci moom. tey fu mu ko mën a yóbbu ak sëriñ bu mu ko mën a jox bu ñu doon def direct ñu demaat toog te li ñuy wax kenn du ko mën a dindi. moo tax dañ ciy sant yàlla ndax comme li nga wax léegi nit dañ koy seet di waxoon na ma ko wala di waxoon na ma ko mm-hmm. kon jàppal na ñaar ñëpp jàmbaar lañ ndax mag ñi dañuy wax ne ay nit bu ñu bokkee lu ñu wax te bokkuwuñ fu ñu yeewoo mm-hmm. su boobaa dëgg la euh, dafa am benn soxna boo xam ma ko mas di seetal bu mm-hmm. ma koy seet di ko seet di seet lu mat une heure de ma koo gis maa ngi koy fàttali ko xaw naa yàgg uh-huh. war naa ma deux cent trois ans mu toog ba mu yàgg mu ne ma seet gi nañ ko bàyyi ma ne ko lu tax mu ne ma man ngaa seet uh-huh. ndax man seet ñi ma ciy gis yombul ne ma benn góor laa ma sa gis mu gis ma ci seet ne ma sëriñ bu la mën a gis yombul lu ci ëpp boo demee ci mën ngaa toog rek mu wax la mu ne ma li tax mënoo agsi rek wax ma laa xam ne li ngay def du sos waaw maam du sos li ngay wax moom lu leer la ma ne ko waaye dinaa la gis de <laughs> waaw ndax li may wax du lu bu bu fekkoon ne lu may fen da ngay ñëw rek mën a toog wax mm. ne nangam nga dem ne oho xam ne mm. yow mi gis ñu la mais dama koo gis ba fi mu daf ma jàpp <laughs> te booba daanaka gënoon naa doon sax tout tànk moo tax liñ ciy def ñu ngi ci sant yàlla bu baax mm. ñu ngi ciy jëflanteel ñu ngi ciy sant yàlla te am na ñoo xam ne ñu ngi ciy ñëw ñu jël engagement sensé loo leen métier maanaam nekk ci benn métier ba jàpp ne duñu kii ñu indiwaatoon beneen may leen bii moo gën te da leen di jaaxal bu buñ demee yàlla may leen ci résultat duñ ko làmbatu daal mm. te it buñ ko seetalee nit Mm. comme li nga wax dañ ko génne lu paase lu mu toll ci kanamam mm. te danañ ko génneel saraxu rabam ak raw xaanam saraxu rab ak raw xaanam boobu nag mm. du ne sarax bi ñun la koy jox moom moo ko war a génneel boppam léeg-léeg nag bu fekkee koo xam ne xëy na mënu koo génne wala xëy na fi mu nekk mënu ko faa def wala jàpp na ne bu ko defloo nit du ko defloo na mu waree suñu ko joxee ñu def ko léeg-léeg sama waa jee moom xam na ci dara mm. yu ci bari damay ko ko def mu dem marché Kër Massar mm. dal di koy def wala bu fekkee ku ñëwal boppam sax du ma jox xaalis dama ko jox ko ko kon man daal li may séq ak nit ki mooy li ma war a jox ma war koo liggéeyal mm. ñun moom ci loolu lañ nekk insha allah jërëjëf euh, sëñ Modou Kara Lo euh, gis nañ ne sa seet mm-hmm. ni nga ko war a metti le prix bi demeewu noonu mm-hmm. ci bitim réew mm-hmm. ak réew mi te euh, gis nañ ne wax dëgg maa la boole ñoom. Mhm. mais ñoom li la boole léegi. Mhm. mënatumaa xam ñoom ñu toll. Mhm. ndax bëgg ci yow. dëgg la te ñooñu doon ñu dëgër bopp ñoo xam ne que sànq tubaab yi ñu yoo xam du du ñëw a convaincre mën na ñëwee sax pour tester. mais bu ñëwee test bi réussir na xam ne fii li fi fekk moom bokkut ak li daa waaw. am na ñoo xam ne bu ñëwee rek ma xam ne dañuy tester si. ndax da ngay di ko bu ñëwee dinaan la man nag jaar naa fu ne. waaye kon ma seet ba xam. ma seet ba xam waaw. Hmm. wala man daal maa ngi kii ba xam léeg-léeg sax mu am ñaar bu dee ci seet moom. Hmm. damay d'accord mais bu dee ci ñaan moom boo bëggee jëflanteeg man ci échange damay lànk. parce que yonent bi daa waxoon ne dafa bokk ci li tax seen ñaan nangu. booy ñaan na nga wóolu ne li ngay ñaan nangu la moo tax fi ne man bu ma doon ñaan dara sax afa muy pare damay jàpp ne lii moom sotti na maa ngi waat ci beneen étape dafa mel loolu sax yàlla ba daanaka lu may ñaan lu nekk su ma jàppee ne sotti ne moom dafa mel ne na ma ko xalaatee woon noonu la demee kon bu dee seet yow mi essin loog yow mi bëgg maa natt ak yaa xam ñëwal d'accord waaw boo ñëwee daal dañu seetal dëgg la seet bi moom méttiwul hmm. donte am na ñoo xam ne boo waxee ñu ne dafa métti yii seet bi dafa tar hmm. waaye méttiwul jafe jot gi tamit waxoon nga ko ci émission bu jàlloon ci wàllu seet gi waaw xëy na mën naa jafe suba waaw xam nga loolu mën naa am ci kii bi. Hmm. mais bu dee ci ñëw gi. Hmm. moom mën na maa jafee jot mais damaa neex a gis. Ah, te xam naa loolu moo gën a kii ndax amul ah. kuy ñëw te doo gis. Hmm. amul benn client bu ma sa ñëw sama kër te tegoo ma bët. moo xam danga doon jël si première garab. moo xam da nga amoon rendez moo xam ne sa heure boo mm. xam ne lii gën a jafe nii mm. moom ngay gën a am ci lële nga xam ne moo gënoon a yomb kon mm. bañu ñu loolu am na ci ñoo xam ne sax bu ñu ñëwee mën nañoo toog dañ doon teg une temps wala deux heures temps yoo xam ne ñii dañuy toog di xaar sama waay ji xam ne te nit yàgg sax mu ñëw daal di xaw a soññee pour wan ko ne ko temps bi xaw naa yàgg parce que def nga fi une heure temps wala deux heures de temps kon ku jàpp ne naqar nañoo jotit maanaam naqari wu ñoo gis kon naqare jot gi li ma bëgg wax daal mooy du ci ñun xëy na ñi bëgg ñëw te mënuñoo ñëw di wootee ndoog whatsapp loolu moo tax mu xaw a jafe. yow waaw danaa seetal sëriñ ci boppam. Mhm. seetal sëriñ ci seet guñ ko jox. ci seet guñ ko jox. waaw seet guñ ko jox. Ah, danaa seetal sëriñ ci boppam. Mhm. sëriñ man merewu de. Mhm. parce que yaa ngi sonn pour nit ki am ndam. mais li may bañ daal mooy buñ la waree jot. pour jox la xaalis nga yow a jot lool. Hmm. baax lool disponible lool. mais boo xasee encaissé nag commencé bloqué nit ñi soppi jikko. Hmm. commencé kii parce que nag dafa neexul gis nga li yére nii hmm. boo ko leboon ba sol ko ba pare fay ay métti. comprendre nga moo tax tamit encaissé xaalis boo jaay ba pare. la war a topp ci nag loolu dafa métti de. <laughs> moo tax di def dëgg te yàlla tax ni ngay disponible boo encaissé gul noonu nga war a disponible boo encaissé ba pare. parce que nit tuuma dafa metti maanaam ñu di la tuumaal diwa ma def lii. Mhm. loolu dafa jar a moytu ci côté bu ne. moo tax fi nekk nii lu mu mën di doon ki nga war a jël xaalisam ba pare kooku moo war a war a gën a tiital ci ki nga jëlagul xaalisam. Mhm. parce que ki nga jëlagul xaalisam am na benn waay. Mhm. bu ma masa kalaamee yow. sa ci man la jaaroon ma ngeen xamante. waa ji bi mu kalaamee jékki-jékki ñëw rek toog ba mu yàgg mu ne ma ah diw mii di nangam ak nangam kii woon na suñu mën ko raadu indi ñu dialogue ba yëpp moom joxeegul xaalis. la muy wax engagé woowaat ma woote waatul kéegul kooku bu bëggee jàmbat nag fu mu jëm parce que lan la man sama xarit ak ñëpp dëgg laa bëgg de te sëriñ bu nekk ci dëgg dama koy défendre client bu nekk ci dëgg dama koy défendre bu ñaar ñëpp amee réeroo nag ma jàpp ci mu kii mais kee moom leeral na moo tooñ sëriñ bi yow lékkagul sa dara loo koy kalaame waaw te da cee da cee teg ne sax yoruma. yoruma mais dama bëgg nga ñaanal ma ngir yàlla. ngir yàlla ma ne ko danaa lay ñaanal ci kurus ngir yàlla. waaw léegi nag moom. Hmm. comme nee joxuma dara. Mm-hmm. te nee na ma koy ñaanal su ma defee samay waqaf kay dinaa ko ñaanal. di ko ñaanal ah léegi nag mu gisaat ma nit ñaa ngi ñëw ci man di am ay résultat mu jàpp ne damay defal nit ñi bàyyi ko. waaw ma joxoon sa xaalis kay fu mu du ma nelaw mukk. Uh-huh. parce mm. ma mel dama ki ma joxoon xaalis mu nekk sama loxo bi. te ñaanal gu ma ko wala pareegul gis résultat am. Mm-hmm. kon loolu moom ñu ngi bu ma nit jo xasoon jox avance am mu jox ma xaalisam maanaam mu woo ma fekk ma yor course rek nga xam ne wuyóoguma ko appel yi xaw a bari maam damay am kersa fi ma toog ndax damay xam ne xalaat na dara ci man oh, te fekk demewul noonu nga xam ne su ma paree damay njëkk def mooy dama koy rappelé waat hmm. te nit ñi dañu war a bàyyi xel baax a baax ne nit ki chaque jour du passé temps am ci téléphone chaque jour waaw naan su ngeen heure bu fekkoon heure bu ñu ma woo jot ma hmm. heure bu ñu bëggee gis gis ma bay hmm. bu ngeen ñaaw damay ne ci li ma war a nekk rek. macha allah mm. ginnaaw bu jógee ci seet. Mm. comme yow da dugg xalwa ba yenn kilifa yu mag yi. Mm-hmm. yu diine yi nga di leen duggal xalwa. Mm. Euh, mm-hmm. mm-hmm. sa dugg xalwa. ban résultat lay génne boo duggee ak ñaata fan nga fay def. waaw xalwa lu am solo la. te nit ñi war nañ ko bàyyi xel baax. alal yi. war nañ koy def kilifa diine yi ñoom sax bàyyiwuñ ko. ndax kilifa diine yi nga xam ne am nañ alal. te yàlla may leen. Hmm. nit ñi yaakaar leen danañ danañ ñi duggloo xalwa ay nit. Hmm. di leen jox loo xam ne ci la ñuy dundee diiru bi ñu leen di defal xalwatu. Hmm. mën a am dolli ko ndax xalwatu maam dafa gaaw. dafa am solo te da aar te dana tax sa day gën a euh, leeral sa diggante sa borom. sa dund goo xam ne gu mucc ayib lay doon. xalwatu nag ñetti façon lañ ciy def. ñetti façon waaw léegi sax mën naa cee doole ñeent. ndax danañ def boo xam ne benn fan lay doon. benn fan waaw benn fan képp. ak boo xam ne bu ñetti fan la ak bu juróom-ñaari fan bu juróom-ñaari fan bi nag gëj naa koo def xam naa xamaa xamu daa diis ci nit ñi xaw ma waaye xam dafa xaw a metti ndax imagine juróom-ñaari fan yoo xam ne guddi ak bëccëg yépp ci nit nga koy nekk waaw nga xam ne ku la soxla woon moom baare nga ko mm-hmm. léeg bu dee wàllu kurus nag ñu defal ko nit ñetti fan wala benn fan benn fan mooy comme journée bi wala guddi gi mm-hmm. way laa mu doon koo xam ne dañ koy defal sans ruyaada riyaada mooy koo xam ne dañ la ñaanal ñetti fan ci wàllu kurus mm. waaye du doon ñetti fan yëpp yaa ko moom mm. maanaam ci mm. misaal am nga ci ay waxtu daal am nga ci ñaari waxtu wala am nga ci ñetti temps yoo xam ne heure bu jotee yow yaa ko moom danañ def contact suñu diggante ak yow sa tur sa tur yaay suñu diggante ak suñu borom defal la ci ñaan mu dal di sotti bu benn guddi bi nag moom moom bu dee aajo bu rëy la ñu bëgg mu faju te mu irsan boobu dañ koy def boobu dañ dañu paree rek borom def sarax daal di gis résultat. daal waaw. Euh, defar naa ci benn benn mbokk woo xam ne yàggul dara. Mm. dafa am benn conteneur bu ñëwoon fii ñu téye ko. Mm. muy sonn ci lu mat daanaka fukk fan ak juróom muy am ko fa xamoon na ma bu yàgg nag. Mm. xanaa ma déggee dana ko xam. mu waaye dafa maa dafa xelam xam naa daju ma ba ma dajee ba mu ñëwee dama ne ko joxal sama waajee mu dem jënd sarax bi mu def sarax bi ma def ko mu waar ma ne ma bàyyi nañ kon yooyu nga xam dafa irsan rek yooyu laa koy def incha allah am na sax ñoo ma booleel yu ma leen defal du ma ko tudd fii nag moom waaye. <laughs> macha allah naa ko euh, ak sérieux gi nga xam ne que. Eh. maa ngi koy gis ci moom bu baax a baax a baax a baax vraiment. Mm. loolu moom kontaan naa ci bu baax a baax. léegi xaloo bu juróom-ñaari fan bi moom. Mm. boobu pour ponkali rek. président yeeg ministre yu maanaam am waaw waaw boobu moo xam naa ñooñu la ndax fi mu ne li ma koy defee ma ko waxee lu ne yii bëgg naa ko lool waaye boobu daa ge. te boobu eh, eh, boo waaw boo ko defee bu la neexee yow fu la neex ma defal la ko fa. Ah. waaw ñaari dëkk daal nga ma ñëw ma ñëw sa foofu defal la ko fu la neex. Mm. ñaari dëkk daal moom laa xam ne moom. moo ko fa defal mais ba am na sëriñ soo xam dem fu mu dugg loon nit xaloon yi mën na tëdd di nelaw rek <laughs> loolu loolu loolu loolu pertement la ndax xalwatu ki ko dugg bu génnee. waaw ah. waxuma ki mu ko defal waaye moom sax da ci yokk. ah moom mi ah, man bu ku ma defal xalwat su ma génnee am naa ci dara. am waaw ndax damay wér ne ma ma doxee tuuti lii ma ci amee nii ci xalwatu kii laa ko amee. Hmm. waaw. loolu moom loolu moom loolu moom leer na ma nañ Euh, mën naa ci yow benn benn tegtal bu bu tuuti rek. Ah. maam li tax nit ñi xam ma tegtal sama première am ki mu mujj defal xalwatu. Mm-hmm. damaa génn rek tegtal dalal ma. Mm-hmm. waaw kon xam nga ne. Ah, ah, waaw dama génn rek waaw. yaakaar naa këram laa génn rek. Mm-hmm. tegtal dalal ma. te tegtal moom mooy gis nga gis nga gis nga loolu kon sant yàlla la. ñeneen waat ci ma di ko defal. te tegtal moom la dalalee ba léegi moom. waaw. defe naa xam nga ne yaa ngi première division. Mhm. te yaa ngi ca yi ca kaw. waaw maa ngi ci waaw parce que Tektal du même porte ñun. Mhm. moo tax léeg-léeg dafa am beneen problème bu ci am ci Tektal. Mhm. da ngay seen sëriñ buy feeñ Tektal di am lu ne dem ba mu yàgg mu bàyyi Tektal feeñi faneen. li mu amoon di ko ñàkk. mu boole faneen fa ak Tektal. li mu amoon di ko gën di ñàkk. mu demaat bàyyi feneen Tektal gën ko ñàkk mu ñëwaat gën ko ñàkk léegi kooku mooy li may man naa indi nit ñi. Mhm. mais munuma leen téye. Mhm. léegi dem nga seen ku doon sëriñ bu ndaw bëgg a jaar tegtal tam a doon sëriñ bu mag. ci force mhm. day metti mën naa laa laaj ngay tontu ak kii mais man nag wax lu ma ci basé ay wax nii waxal li gën a ci àddina mais man résultat mooy atta bi parce que bu man la invité léeg-léeg sëriñ may wax ak moom. sëriñ bi ci boppam ne ma nekkuma Dakar fekk am naa client bu fa jëm. ma ne ko boo demee passe boo ko client ba ak rek ma bañ a jëlati. parce que man xajuma ci. kilifa guy wax lu am. kersa googu attanu ma ko. te kii yaa boobu man xam naa ne bu wala booleeg sëriñ. ngir yàlla dinañ farlu ngir man dinañ la wàññil ngir man. dinañ la jokk cër ngir man. cër boobu ma am rek ci laa lay ki moo tax ma ne la dee ko maanu boole. te nit ki xeeb loolu fekk. kooku sëkk na maa moom loo xam ba ko tuddee sama tur rek jàpp na la te yàlla tax ngir man léegi nag sëriñ boobu bu dee sëriñ bu dul wax dëgg boo ñëwee agsi bëgg maa paas sëriñ ba du ma jël mhm. ndax sëriñ ba lan ma wax ak li mu la wax bokkul mhm. ndax lan am na beneen client bu teg boo xam ne que jégul ci moom mhm. ma koy kalaame te man du may kalaame ngir daaneel mais damay kalaame ngir solution ah kii de mi ngi jàmbat lii kii de lii lii lii ma waral ma bàyyi jël di lu jot ma ko audio ma transféré ko borom mu doon ñoom ñaar mu leer directement lii daal mooy sama yéene ci liggéey kon xalwa daal mooy loolu ah den beneen sa taalif bi. incha allah ak tegtal mucc ak xewal ak yooyu ba àgg première division. raw télé yu mag yi ah. est-ce que Mourou euh, bii moom moo yëngaloon émission bële wàllum rab. Mhm. tey au lieu ma ci ki ku am rab ak ku mën nga téye bu mag ma téye bu mag. Mhm. ñu wax ci. waaw waaw waaw. bisimilah kii mooy cuuraay yi. Mhm. cuuraay yi sëñ Mourou yi nga xam ne que day dàq saytaane ah. rab. ngelaw. Euh, umu umu day lay daal doon. waaw waaw ku umu. Mhm. ku tëju. waaw rab um nit. Mhm. waaw ak waaw li ma li ma waaw. moom euh, rab la. Uh-huh. ak wàllu seytaane. wàllum seytaane ak ngelaw. wàllum ngelaw ku tëdd ba guddi ngay tiit. ngay wala fi nga nekk da fi fay ñemewul. waaw waaw fi mu ne sax koo xam dafay gént gént yu jaxasoo. Mm. fi ne ñun ñi sax léeg ñuy liggéey ba àgg ci leen sa laal tuuti rawxaan yoo xam dañu am xaw am doole. waaw uh-huh. ñoom du ñu ñemee song waaye danañ ñu danañ leen di gis lu bëree bëree ah, bëri. balaa may génn foofu yow mas ngaa dugg xalwa daje fa ak lu la tiitaloon. de dinaa gis waaye tiit nag li nga gis xalwa ñun li ñuy gis duñu tiit ndax heure boo duggee xalwa sa xalwatu nangu mm. dinaa dugg xalwa yaakaar naa bi ma mujjee dugg xalwatu am na lu ma fa bokkal nekk ba ni ma génne waaye nag aw ma sañ-sañu wax ko dara mbaa ma def ko dara ndax xam naa raw xaal la ci ki may defal ki may liggéey loolu xam nga xam nga xam nga yooyu hmm? xam nga loolu du ma ko tudd waaye moom dinaa xam baax ndax bëgg mu xam kii waaw xam nga loolu xam damaa damaa jëlale sax euh, xalut kese hmm. mais boo xëyoon tey rek nga bëgg liggéey liggéey am résultat hmm. war ngaa def li ñu tuddee sarful ximaar ak euh, saakinal ki makkaan maanaam yi nga xam ne ay mbir la ñoo xam ne dañ leen di dañ ñuy gis duñ leen gis ñu nekk ci place bi hmm. maanaam di la yàqal yooyu dañ leen def sarfu dañ leen hmm. fiy jële indi fiwaat ñoo xam ne ci dañuy ànd ak yow liggéey bi suñ paree ñoo ñu nga jëlewaat leen fi ndax am na rawaxaan yoo xam ne booy liggéey dañuy teew soo la fi jëlewut it fa la ñuy dij hmm. te loolu mën naa jox misaal bu gàtt boo demee tiir bu tudd wasiyatu nisaan suñ Musaa bi muy nettali ñëw Cheikh Omar Foutiyou Mbàkke nettali bi mu paree dafa fàttee ifan si xawaatim bi mm. ñu dem ba mu àgg ba mu àggee si Omar Fouti dane ko ba ngeen di tàggoo ak moom bind na benn xawaatim ca suuf di leen ñaanal da koo fàttee ifancé nag rawxaane naaj wa jàpp na leen ña ngay jooy ba tey bu demee ci wasiyatu ni son si Musaa da nga ko ci fekk kon yooyu mm. maanaam dañuy ànd ak nit ki ci liggéeyam maanaam ci waxtu woowu moo tax boo defee xalwatu yi yëpp da koy gis mm. waxuma la sax xalwatu mais léeg-léeg sax nga génn gis loo xam dala leena lii li ma doon liggéey la waaye amoo sañ-sañu ragal ko mm. ndax euh, liggéey nga loo xam doo ko ragal tam du la mën a xale bi ma gënee nekk xalwa am na ñu ma xamoon ñoo xam ne waaw waaw waaw nga xam ne boobu noonu boo afaan xalwat naa sa dugg di am yoo xam dama koy gis mm. man suñ cee dafa am loo xam ne ci daara ji laa ko xame woon te booba kenn jàngalu ma ko ci xam-xam maanaam gis nit xam ne kii nit ku rax la. nit ku rax la waaw. Ah, kooku dama ko teel a xam. seet waaw seet naa ne bi ma koy xam. Mm. waxtu waxtu tisbaar. ci la ma ko yàlla njëkk a xamale. Mm. ma moo ko naa gis dama koy xam waaye aw ma sañ-sañu di leen daw mbaa di mm. leen di ragal. noonu nag noonu laa amee kii ma nga xam ne comme jinne kii yëpp loolu saa dama ko daan wax xale yi ma daan jàngal ne leen. su ngeen doxoon bu yàgg ngeen ci garab. wala ngeen yem ci dara mu wax. Hmm. bu leen tiit. ndax boo dem jullit waroo tiit. waroo tiit nga war a xam ne yàlla mi ngi lay ubbil fattu ndax yàlla moo ne wa in min say hmm. loo gis rek. Hmm. dana nekk loo xam luy sàbbaal la luy wax la. su boobaa nag kon yaa ko mun tuddee konte yàlla la defal fattu waaye bul jàpp ne damaa jommi. kii daal ku yéeme la boo gisee dara ci biir xalwat la. loolu boo leen gisee yow ginnaaw daawoo leen ñoom luñ fay wut dañuy toog nga toog rek. waaw am na ci yoo xam ne dañuy toog. ne ceel ànd ak li ngay def ba pare Hmm. am na ci yoo xam ne nag dañu lay laaj. am na ci yoo xam ne waaw dañu lay laaj ci li nga dégg. Uh-huh. waaw ñoom dañu lépp lañuy dégg ci li nga dégg lañ laaj ci lépp la ñuy wax waaw. xalaa xamoo xanaa xamoo suñ cee léeg-léeg loolu moo sañ cee def ko dig wàllu rawxaan wàllu ah. rawxaan secret la wàllu rawxaan moom secret la euh, boo gisee maanaam nit def xalwat ba mu yàgg mu départ hmm. li waral mooy dafa defutoon maanaam kaaraange gi am kaaraange yoon ñoom bële ñu agsi parce que am na ñaar fukki kaara ñaar fukki sart ak juróom-ñett mhm. yoo xam ne nit moom lay def avant muy def léegi nag ki nga xam ne da benn waaw ñoom bu ñëwee dañ lay indil jafe-jafe boobu mhm. parce que nga xam ne mooy kilifa gi du agsi rek ñëw mais mel bu doon ñëw fii du jékki-jékki rek ne ñu xool la ñuy def ba ka mujj ñëw agsi nag mhm. su agsee door wax ak yow soxla am na ci nag xalwatu yoo xam ne yooyu du ci génn de Hmm. loolu moom day am loo xam ne dana ñëw toog a yow ci ci jamono bi nga koy def yaa ngi koy gis xam nga ko nga liggéey li nga liggéey soo paree dootoo ko fi gis. dootoo ko fi gis incha allah. mos nga dugg xalwa ba pare man gis nga gars yi yëpp vraiment ñu ne la kii ngay liggéey moom li mu li mu liggéey ci mënul sotti wala. déedéet loolu mosuma ko ah, gis déedéet. ndax xam nga daal moom loo fa xas ba engagé. waaw maa leen balaa nga ci dugg nga koy seet boo ci duggee xam naa. waaw waaw ndax man dama koy faral defal sama bopp. bu dee hmm. sama bopp nag benn benn benn guddi laa koy def. Hmm. wala wala benn wala benn. bëccëg waaw bu may fàttali dama ci boole. waaw moom waxuma ñaanu bépp jullit de ñaanu bépp jullit ma bokk ci ndax jullit la mais ñaanu ber loxo tamit spécial pour man boobu laa bëgg. Hmm. nit ñi nag teel ñu dóor la ci ñaanu bépp jullit de ku la gën doon jullit day jël la ci ëpp. ndax ñu la gën a sell a ngi fi ah kon daal bii moom ëpp naa bañ am. waaw bii moom ëpp naa bañ am. Mhm. ndax da koy euh, suuroo rek. waaw waaw tuuti rek ngay def sax. waaw waaw parce que cuuraay bi yi ñu ko liggéey dafa bari. Mhm. boo gisee ñu dem ba. même am asma garaawul ci am amul am na ñu koy jox ñoo dañ koy amee sax te duñ indil mhm. gis nga euh, boo gisee ñu def ko nii. maanaam dañuy dem ba nit ñu bari di ko yittewoo nga xam nit day ñëw. Ah. Euh, ñu jox ko saafara. jox ko yeneen waaye bala moo dem loolu lay wax ana cuuraay bi. ana cuuraay waaw léegi nag moo tax ñu def ko nii waaw moom jël xam ma joxewaat numéro bi numéro sëñ Modou Karalo 77 750 beneen maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit bëri neexul ki wax ci saal mu nopp ki dox ci mbedd mu dugg ci biir 77 750 22 60 77 750 22 60 76 396 53 81 76 396 53 81 sëñ Modou Karalo nekk ci Kër Massar ci wetu Osan bi wetu Jamil Karo nga dis ko soxla lu mu mën mu def ko leen ñu bàyyi yàlla nga xam tëlewul dara te na lépp dina nekk ci Touba léeg-léeg Madiana nga fekk ko dis ko soxla lu mu ci man mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla nga xam tëlewul dara te mën na lépp cuuraay bi nag boo ko bëggee boo demee Madiana yow mi féeti Touba jëru ñëw Dakar dina ko fa bàyyi organisé wu na di nga ko am ak prix ba dina la wax bu mag bee bàyyi maas ak maandaw seexam bi la ah bu ne bu mag beeg bu ndaw boo ci am rek ak prix bu dee tamit dana nekk Kër Massar jëru nga ñëw Dakar demal fi sëñ Modou Kara Lo nekk rek ak feneen fu mu ci yaatal pour mu nekk fa dinañ ko fésal bu baax a baax bu dee nag yaa ngi ci li gën a jege Dakar demal ba wetu station xaar yàlla kaar pour dem jëppal fi ñu jàddee bu ñu jàddee rek euh, garab gi di nga ko gis ñu ci taxaloog Thierno bi defar télé ak ñoom Amna ak yooyu ak sa jili nga ñëw foofu tegtal boutique ngi foofu ci buntu kër gi euh, te dend ak banque atlantique bi euh, ci fo bi nga ñëw foofa di nga ko am daam Diop nekk fa ak 108 la woo ma 188 100 ak 8 la 1 ak 0 ak 8 51 ñaari yoon. 77 325 27 19. am nu muy demee nag yéen a jëlee tegtal bu tig moo gën a seer nag ngeen bàyyi ko xel bu baax baax baax ndax ni mu demee ci dañ leen di jàppale rek kum doyul nag jëru nga ci dugg. Mm-hmm. waaw duñ fi ñëw naan la ah, ah, baax na de sëñ Mourkara loo déedéet nii nga seetaane mu doy nga ñëw mm. mu doyul la jëru nga koy wut. Mm. sëñ Mourkara la kon ëpp naa ba ñam. waaw ëpp naa ba ñam te ku amul doole ku am doole. waaw bii nga war a am. Mhm. bu munul ñàkk nga am bii. Mhm. bu mënaatul ñàkk nga am bii. Mhm. ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax ah. te am na tamit yeneen yoo xam ne que yu privé la tamit suy jëm ci yi yoo xam ne que yéen ñaar nag faaw ngeen gisante. mu seetal la ba xam yow say mbir nag lan la laaj. ah. waaw waaw li mel ne ku feebar léeg-léeg nga dem hôpital. ñu bind la garab nga ñibbi. Mhm. léeg-léeg ki feebar euh, dem hôpital. Mhm. ñu sampal koy butéel téye ko fa. Mhm. léeg-léeg nit ki dem hôpital ñu yokk rendez-vous dangay ñëwaat. moo waral doo tëb lépp rek kenn ku nekk bi nga daal. mais bi daal naw nga ko cuuraay. waaw bii. naw naa ko te wóolu naa ko. te wóolu nga ko. te ñëpp ma maam xanaa ki xamul daal. ki xamul daal ma jaaxal. maanaam ko xamul daal moo ma jaaxal borom yaram yi diis ak yëpp buñ koy suuroo mën na maanaam li tax ma bëgg njaboot gu nekk am ko ku njaboote hmm. maanaam lu jaaxal kenn sa njaboot woo ko mu ñëw nga suur ko ci mu dem mu suur ko ci mu dem waaw nga may yàgg fi tëw waaw moo tax gars yi toog di critiquer tegtal ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo xamuñu sax xamuñu parce que nit ñi lañ yéenewul jàmm mhm. mais ñun ñoo ngi de fu ni dem dañuy seen courant la bàyyi ma dagg bi avion bi kaay ma def lii kaay ma def lii ndax lan gis li ñu def ci nit ñi ñun nekkuñu ay business ak yooyu de mhm. jàppale nit ñi te yàlla tax seen solution moo tax ku ñu gërëm leen dajeel boo dajeel nag deux cent mille personnes yu lay gërëm ak trois personnes yu ñaxtu. Mhm. saa yi tamit boo ko métti loolu da ngaa gëmul yàlla la. Mhm. moo tax kon di leen ñaxtu wax si sumaan yi wax leen loolu neex ñun bëgg na leen fu nekk nii. Mhm. te ay asmaaw taalib la ñu jàng nag ko xool la ca nekk ku koy jàng boo takkul naanul sangoo diw woo suur woo ah kuy dugg ci say 18 nag dina xam ne asmaaw taalib nii may def sax. maa ngi ciy jaabu yàlla parce que boo ko waxee ñeneen ñi dem lijjanti luy asalaamaaleykum taala jàng ko njëriñ yokk xewal dikk loraa nga tak en mhm. seen mur karaalo mhm. man de lii laa bëgg mhm. mooy sama slogan xewal dikk loraa nga dakk ñu ñëw yow ci euh, mi-temps Tektal Ngora yaa ngi ci aay ba léegi waaw ñu ngi ci sant yàlla baax sa njaq yi xam waaw waaw moom daanaka euh, am na ci boo xam ne waaw saafara lay doon. jox ko nit ki mu di ko naan. pour bu fekkente ne maanaam rab da cee laal. waaw parce que rab da ciy laal bu ci laalee pour mën ko ko mën koo faj. Mm. bi ci des tamit sunguf la boo xam ne daf koy faral di jël. Mm. nga xam ne am na ci boo xam ne bu koy jëlee daf koy booleek saafara bi bu ko jëlee jàlleku saafara bi. Mm. boobu moom ñu ngi ci am résultat te bu baax la. te dafa efficace te amul demal ma ñëw. amul demal ma ñëw ku leen soxla. Mhm. léegi ñooñu bu dee waa ji feebulul. Mhm. te rabu ndaw si soxor. Mhm. dafa mën a indil loraange waa ji bu fa demee gaaw a yegg. waaw bu fekkente ne waa ji waa ji amul amul amul. amul kaaraange. rab bi bu fekkee am na kaaraange nag. ci la ko yàqal ci benn. ndaw si mën naa mën na ko def maanaam ñoom ñaar seen seen diggante di am problème xol buy tàng wa ilaa bu jot a amee seen diggante ndox bi. rab bi daal di koy puusaat mu génn nga xam ne ñoom ñaar mën naa la man gis naa suñu jeex koo xam ne hmm. bi mu amee soxna rab bi nga xam ne rabam la bi mu xoolee mënulu ko dara hmm. ko wax mooy bàyyi bàyyil soxna soo ko bàyyi dama lay rey soo ko bàyyi dama lay rey mais waa ji bàyyiwu ko mais rëyu ko parce que mënulu ko dara daf koo napp rek ah. waaw daf ko napp xupp <laughs> ko kon loolu te loolu ma lu may xam la lu leer hmm. naa ñi lu ma teg bët waaw kon rab ci boppam bu fekkente ne mënulu la dara yàq-yàq la mais bu la mënalee dara moom da lay faagal waaw bu mënalee dara sa borom kër moom mm. moom da lay daal di éliminer moom dina bari na ñoo xamante ni rab moo éliminer seen borom kër masha Allah mm-hmm. jërëjëf euh, sëñ Modou Kara Lo ñoo ngi fii ci <coughs> studio sëñ Fallou ci Tektal TV ngeen gis ngeen ñaanal ñu bu baax a baax Tektal TV temps yi dañuy yëngal ak niveau bi fu ne ci àdduna bi nen ñu gis bu baax a baax a baax gërëm nañ nag euh, waa baax la ay kon la ñun nekk nii bu ñu kenn wax en question dara de suñuy kii bopp la ni kii nag di dem di góorgóorlu rek pour tegtal di fi pour raw télé tubaab bi waaw lu ne dinañ ci dugg sëñ Modou Kara Lo léegi concours général nag ENAM gendarme douane xet yooyu yaa ngi ciy tax ba léegi wala waaw concours Mm. ak wàllu visa. wàllu yooyu moom yow am na loo xam sax ci yéen résultat yi. waaw résultat yoo xam dañ ko daan dañ ko daan def ay yoon yoon yoo xam ne amuñu. Mm. yàlla dogal bi ñëwee suñu borom dimbale ñu ci. Mm. yoo xam ne am nañ ci ay résultats yu leer naññi. loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ndax daanaka bu ko nit ki xasee kii. buñ ko xoolalee ba def loo ko sarax rek. dañ ko defal ñaan am na ci koo xam ne sax. Mm. moom daanaka maanaam gisewuñ ma jox ko dara. maanaam dama ko xoolal def loo def ko sarax. mu def sarax ma daal di koy ñaanal. yàlla daal di ko koy may. xam ne waaye lam ma ñaanal. Mm. xam naa ñaan gi rëy na lool. Ah. xam ko nangu. Euh, li tax ma xam ko mooy yaakaaru ko woon. te sonn na ci. te nee na ma ci famu bu néew doole laa bokk. tey jàppoon naa ne it nag ko am. te def naa heure bu ma demee ñu sànni ma bu ma ñëwee yàlla dogal mu jaar sa loxo hmm. kon loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax yooyu yëpp nag duñ ci ndamu hmm. ndax waxtu wu ñu tëjoo suñu néeg ba course gi li ñuy yëg ci jamono boobu mooy ñun ab jaam lañ bu xeebu bu amul boo xam ne yàlla mi am nag ñu ngi koy taalal suñ loxo kon duñ ko taalal suñu loxo mu may ñu ba noppi ñu génn ci biti di fëgg suñu dënn naan ñoo def nangam ñoo def nangam waaye nag danañ ko sant ba mu xam ne lim ñu may ñun yëg nañ ko hmm. te wa amaa bi nihmati rabbika fa hadis bu la hmm. yàlla dafa ay xéewal nga waxtaane ko du ndam waaye sant la ko rek comme man de li ma wax mooy hmm. ku dem cib sëriñ xam loo fa mën a joxe mais boo fa amee résultat Euh, ak loo mën a am ci àddina hmm. bu la neexee bu ma jox dara. Hmm. Hmm. sëriñ ba tamit boo ko boo ko joxee milliard moom bu ko neexee bu ma jox dara. mais yéen ñaar moom en tout cas maa leen gën a kontaan. ci ndam man résultat sa ay Tektal TV résultat la sant. résultat suñu secret du lenn boo gisee télé Sénégal yëpp kenn yebuñ ci domaine bii. mënuñ ci yem kenn résultat bi ñu ñëw fas ko sunu xol maanaam yéene nit ñi jàmm te yàlla tax san intérêt sans condition. loolu mooy mbir bi mooy secret. amul sikk sàkkal kuy def résultat moom sëriñ ba boo amee milliard bu ma jox dara client ba boo fa amee résultat boo yoree milliard bu ma jox dara bu la neexee rek laa de mm-hmm. Mm-hmm. waaw parce que du ma laaj nag nekk ku ma jox ma jël mm-hmm. waaw du ñaan kat duñ leb kat duñ tegi dil mais nag bëgg na lu baax nuyoo murit moom ñun ñoo koy wax moom waaw kuy def nuyoo murit moom bu la neexee nga def Cheikh Diop Cheikh Talif ku ma bëgg a liggéey moom ma bàyyi la ak gars yi rek ak kurus yi ak asmantali yi ko moo tax te defe naa jotewuma ak kenn lu ma nit war a liggéey daal loolu moom ah, xam naa sëñ Modou Kara Lo mhm. léegi waxtu beeg ñu dab euh, bayre bu saf sap yaa ngi ci ba léegi mhm. bu saf sap sap waaw bayre bi ñu ngi ci bu saf sap bu saf sap moo xam bayre ci li nit ki di liggéey mhm. wala bayre góor la wala bayre jigéen la bayre jigéen waaw wala bayre boo xam nit ki ci la mu nekk daf caa bëgg a fés wala bayre njaay jigéen ñi dem ba doon Effenberg nag mënuñu am borom kër mu tëleel mu mel ne dañuy soof nit ñi te defuñu kenn dara ñooñu tey bu ñëwee bayre nga leen defal wala kaaraange wala non bayre lañ leen di defal ak bu fekkee mësuñu koo am mm. li ci ëpp rab dana ci laxasu yooyu nag lañ leen di njëkk defal càngat ba mu dañ mm. su ko defee nag ñu yooyu defal luy tax ñu daal di am borom kër incha allah waaw kon jigéen ñi nga xam ne que daal euh, amuñu bayra mhm. amuñu borom kër mhm. te ñeneen ñi doon kilifa mhm. yenn góor yi ragal leen ñoom it mënuñoo seen bopp fenn ndax ñan bokkal ñooñu am niveau ñooñu faalewul leen ñu yeneen góor ñi ragal te bëgg ñoo mooy bëgg borom kër ñooñu daal bu seetaan tegtal jël numéro bii nga wax leen lu leer insha Allah waaw bu ñëwee ñu wax leen ñu leer ba noppi waaw ba ñoom jëkkër yu baax ba noppi defar leen lu wér waaw parce que tamit góor ñi nañ bàyyi xel leen am na góor ñoo xam ne que dañuy yor yor luy oto dem ci réseau yi seer yi dañuy ñoo xam ne que duñ yemuñu naataango yemuñu buñ ca waxee lu dul dëgg ba takk leen nag wutuñu lu dul lu lekk seen xaalis moo tax jigéen ñi ku ci war a sëy sëy topp njàng mi rek naan tax yu ma sëy topp njàng njàng ba dem ba yor nga lépp nag jàng nga yor nga diplôme yi yor nga kër yi yor nga xaalis yi soxla góor bu baax mu tëla ab trian ñoo di lekk sa xaalis ba pare nag boo bàyyee sëy mm-hmm. moo yàlla li ci kanam moo la gën a xam sa bopp ah. Mm. Euh, sëñ Mourou Kara léegi waxtu bi moo nu dab. Mm-hmm. lan nga gis ne bëggoon nga nga dugg ci te dugguñu ci waaw loolu bokk na ci euh, maanaam nit ñi. Mm. ñu xam ne sëriñ yi maanaam dañuy ñaan ngir jëm yàlla. ngir jëm yàlla waaw ñaan ngir jëm yàlla nag mooy. li aajo ji nga xam di ñëw ñoom nekkul seen poos. Mm. waaye yàlla may na leen ay secret yoo xam ne buñ jaaree yàlla mën na ko nangu. ñu jaar loola moo tax na ma waxoon ci benn émission ne léeg-léeg dañuy mel ne ku la xaw a yónni ci yàlla te yàkkamti la te joxuñu la paas hmm. maanaam léegi nag ki nga xam da nga ko ñaan loo mu di lay ñaan loo boo demee avant ngay jëfandikoo ko sax wala boo demee sangu sangu nag toog ne ko sangu naa de hmm. maanaam nga xam ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi ñaanlu say garab jeexagut waaye jàpp nga ne avant muy jeex sax li nga doon ñaan dafa sotti ma war naa sotti nga xam ne bët bi ngay xoole sëriñ bi rek mooy sëriñ bi ndax xam na dara teew pareegoo maanaam ñaaw njortu sa bopp ñaaw njortu sëriñ bi loolu mën naa waral résultat bu yeex kon nañu rafetal njortu yi mm-hmm. te yéene wante yéene yu baax yi te xam ne kenn ku ci nekk yéene nañ la insha allahu rabbi ku am aajo mm-hmm. ndax lu ñu def suñu benn waqaf mm-hmm. lu dul ne boole nañ ci képp koo xam ne sa yitte wala sa benn aajo dégg nañ ko yàlla fajal la aajo booba kon nag nañ xam ne ñoo ngi ci seen ginnaaw te fas nañ yéen a jàppale hmm. incha allah di fàttali na nga kii damay dem nag hmm. euh, hmm. soxla crise wéyeg moom soxla lu ne nag mais xaalis nag mooy seen yitte kon xaaral ñu xoolaat mbirum xaalis tuuti ñëwaat ñu xoolaat vidéo asalaamaaleykum ok nii lay demee nag gis nga boo amee saafara xaalis te bëgg xaalis dangay wut xaalis def ko ci biir sa ngoo ko am xaalis bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah mm-hmm. fii de moom mbayeen yeeg ture ture yeeg kebe kebe yeeg jaxate jaxate yi siise siise yi sile sile yi lii moom ñëwee wuñ ko def moom jàpp nañ ne buñ ko defee rek ñàkk nañ ko <laughs> a bëgg ay million kay wala ay milliard ah vidéo la gars yi nam lii la gars yi bëgg nag na def bii ku nekk Europe waaw bu dee ñett lay toll. lu ko lu mu bëgg rek. lu mu bëgg rek lu naa lu toll. da koy amaan ñett. ñett ba juróom. ba baal foofu la amaan ba ñett ñett du fa yem. Ah. Ah, du fa yem hmm. loolu li muy jëriñ mooy ci jamono boobu danga am soxlaam. da nga am soxlaam maanaam hmm. waaw ci misaal da nga am da am soxla dix millions. waaw. wala nga am soxla euh, trente millions. Hmm. nga buñ la ko liggéeyee ba problème mën eh. xam nga loo xam nga xam nga li mooy. xam nga mooy nit li ma waxoon. Hmm. ci benn émission ne nit dafay fexe buy yéeg mu jaare fi mu war a yéeg di dem ba àgg. ba àgg hmm. maanaam da am soxla. deux cent mille wala ngaa bëgg deux cent mille wutal cent mille def ci. nga ba am deux cent mille. soo liggéey ngay yéeg étape par étape. Mm. te xam-xam boobu ni mu wéree sax dafa jóge kenn ko def di ko kenn du ko def di ko dafa am ñun sangat yoo xam ne mënuñu koo jox nit ki mm. maanaam muy torox ci àdduna am ci am am jaay waaw kontaan waaw maa ngi santaat yàlla di sant suñu ñaari jur di leen ñaanal yàlla mu may leen fanu gudd may leen ak wér yàgg leen suñu kanam euh, di ñaanal mbooleem ñi nga xam ne suñuy wëllëree lañ ñenn ñi ñu bokk lii muy natt bii di ay sëriñ comme ñun ñenn ñi ñu xam leen ci réew mi ñenn ñi xamuñu leen ci réew mi te ñi ay jàmbaar na ñoom itam mm-hmm. euh, di sant waa Tektal TV mm-hmm. waaye di sant ñi nga xam ne yàlla daf maa booleek ñoom ñu ñëw ci man euh, ñenn ñi nga xam ne tamit dañ may dégg rek nangoo yëkkati seen xaalis jox ma te mosuñu maa gis chaque jour moo tax léeg leen nit jox ma dara ne ma ah danaa la deseel tee ma fee bàyyi sama carte d'identité ma ne ko confiance gi nga ma mm, jox ci njëlbeen su ma la ko delloowut man du ma gor ndax yaa njëkk jël sa xaalis yónnee ma kon bu dee deseel gi man war naa ko nangu hmm. am na ñoo xam nag dañuy dem ba fàtte ko nga lëggéeyal leen hmm. waaye dañuy jékki-jékki ñëw yëkkati jox la teg ci dara am ñoo xam dañ la wane la gis naa ndam de hmm. waaye nag incha allah danaa ñëwaat doo leen gisaat mais bu ñu nee ba soxlawaat nag dañuy am problème bëgg nañoo ñëw mais ñu ngi xalaat loolu nañ ko bàyyi xa boo gisee bëgguma leen saa nit deseel ma mooy dama bëgg manaam ku am ak man eh, kii bi ma lay nemmiku maanaam ñoom jàmm te bari na ko xam ne boo koy nemmiku waaw boo ko nemmikoo rek fi ne mu jàpp ne leneen la te fekk mm. du loola kon ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm di ñaanal Tektal TV mm-hmm. suñu boroom kàttanal ko ba àddina bi yëpp di ko dégg ci ndam waaye di ko gisee ci ndam yoo xam ne moo ko moomal boppam incha allah te yàlla barkeel ko di sant nag sama wëllëre du ma jeexal mu ko di santuma sama waa ji nga xam ne mm-hmm. pap moo may faral di jàppale ci liggéey bi léeg-léeg ma nekk Touba mu nekk Dakar sonn mm-hmm. ci lool nag maa ngi koy sant moom it di ko gërëm ak soxnaam. di sant sama soxna moom itam soxna Yaasin moom it da ciy jàpp bu baax ci liggéey bi. te benn la am a nag ah, ba bu waxee loolu dina nag ma ñëwaat Tektal TV. Ah, <laughs> waaw xam ñu ne ay ay ay ay ay ay murit lañ. Mm-hmm. faaw ñu am ñeent moom incha allah. waaw nañ bi moom tiitul ba mu koy takk. waaw ah. maam damay wax ne takk soxna du procès. du procès feneen boo ko ma gisee ku ko def procès danga muy yëm daal <laughs> maama jàpp ne nit ki li mu amee solo xam ne am na benn solo mu dem dem def ko rek ndax fan ki xom maa taabale ko min nisaay boo ko defee procès def la problème mu def la problème waaw jeex na kon jaajëfal nañ sëñ Modou lañ doon dalal mm. li ma sol nag euh, ki ma habillé 428 19 35 aw Fall la aw euh, mhm. mhm. xam naa kon sëñ sëñ Cheikh foofu nga may maye ma wax lii. ndax mhm. sëñ Dame Ndiaye di Murit Sadikh. waaw moom day ñëw yére ba mu rafet mu ñëw jox ma. Dame Ndiaye waaw bokk bokk ci daayirati Muqaddimatul Xidma. génne numéro nga xam day ñëw day ñëw kuréel. jàng ba kuréel bi jeex. mu daal dem Muqaddimatul Xidma fanaan fa. ba set

ñaw ko ñëw jox ma wax dëgg yàlla te tey soxna si da koy ñawal du nangu mu jox ko dara moom daal ko baax la te xam naa bu dee baax moom mm. moom gënuma ko moom ku baax la ku bëgg sëriñ bi jeex takk sëñ Muntaxa ak sëñ Cheikh moom sëñ Muntaxa maa ngi koy ñaanal yàlla di jaajëfal tamit jërëjëf waaw di sant nag si Amadou Rafaay sama wëllëre bu baax wow moom itam di suñu lépp nag ñu ngi koy sant di ko ñaan baax a baax dafa bëgg xam-xam wallaay wallaay ndeysaan sëñ Amadou Rafaay ñu ngi koy nuyu ak xaritam sëñ Jili Fata Falil mhm. ak sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarim al euh, ak sëñ Mbacke ñaa borom këru Sousa euh, Ndiaye biir ki sëñ Abdou Karim ak Rijal que euh, sëñ Abdou Karim Khadim Euh, ak euh, mu tuddati sama xarit bi waay oh là là oh là là fàttali ma baax na hmm? ñëpp la ah waaw waaw géej waay géej waay xaaral damay def ni Abdou Karim kii xaaral may génn tëmbale Ousseynou <laughs> Ousseynou kër sëñ Abdou Karim Ousseynou yow nga xam da a dégg nag loolu du yoon dama woo. Ousseynou moom koy gërëm bu baax a baax sëñ Abdou Karim gërëm tamit sëñ Galas moom sëñ Jili moom sëñ Fall ak sëñ Abdoulaye moom sëñ Jili moom sëñ Fall ak sëñ Alaaji Baara moom sëñ Jili moom sëñ Fall ak sëñ Cheikh Naa moom sëñ Jili moom sëñ Fall ak Soxna Daba moom sëñ Jili moom sëñ Fall ak sëñ Saali moom sëñ Jili moom sëñ Fall gërëm nañ ñëpp ak sëñ Xalil ak sëñ Jili Fata Falilu gërëm nañ ko sëñ Abdou Samad Mbàkke ak sëñ Mohamed Mbàkke doomu sëñ Abdou Samad Mbàkke Soyibu gërëm na ko ak sëñ Bassirou Mbacke Abdou Khadim sëñ Mountakha yàgg fi loolu te ànd ak wér sëñ Babacar Sy Mansour yàgg fi loolu te ànd ak wér ak bépp kilifa diine gërëm nañ ñëpp ah euh, gërëm nañ ñëpp ak ñu bale milliardaires yi ci àddina bi boole na loog ay milliardaires yoo xam ne que moom li ci garaaw mooy gisante nañ tegante nañ ba pare ba nas ay mbir yàlla bu ci cat a kon Amir Abo lim nar moom ñi nga ne la war may ay 100 millions 200 lim nar romb na foofu yéen a gàtt gis-gis rek mais lam nar moom romb na foofu moo tax AA10 sénégalais africain buy dawal Bugatti oto bu jaru man ñetti milliards ci CFA ñu teg bët ñu gis ko mën na def ñu bind ci Trump plaque ba gën a seer oto ba bàyyi leen xel bu baax a baax a baax montre bi muy takk gën a seer këru Almadi immeuble bi tegtal nekk montre bee ko gën a seer mu ne ma bëggee ma may nag ma ne ko téye parce que ba ma ko maye dama la ko yàqal te mun ma koo jariñoo parce que man def naa cent mille bu teew ba mu gën a montre bu buy jari million te mun ma koo jaay mais soxla la waaw man nag montre yi laay takk yu sérieux la de gis ngeen ko yu sérieux la mais dama koy takk nii après bu may tourné rek mooy noonu ah. kon AA10 gërëm nañ ko Kapa Fall gërëm nañ ko Kapa Fall xaritu Amir Abo euh, Seck Ndaaraan gërëm nañ ko Ousseynou Ly Allemagne moom mi may jàngal allemand moom ak Pierre Issa waa collège ñu ngi leen jàpp ci FC Africa suñu club bi nekk ci Allemagne mu màgg ah. Serre Fall Espagne Mamy d'Enfant France gërëm nañ ñëpp xewal dikk loraa ngi nag FC Création Fatou Cissé yoon bu mujj ci biir émission bi 77 750 22 60 77 750 22 60 beneen 76 396 53 81 76 396 53 81 bu ne nag da nga soxla produit yi ci boppam. Mhm. Tektal boutique am na fa 108 51 51 77 325 27 19. sëñ Modou Kara Lo yii moom ci rap la jëm ak tëju ak um ak jaaxle xet googu nga ñëw jënd ko dem. yeneen yi seet beeg yooyu nag bul bàyyi ba àgg di laaj ñaata lay seete wala nga def seetlu bu pare bëgg a ñaanlu traitement yu bàyyi moo tax boo dem ci kër sëriñ fexe yor lu bari rek loolu laaj fekk mi nga jox. Hmm. day dana tax fii ba Kër Masar nga déplacé ñëw seetlu ba pare fay prix seet ba bëgg a ñaanlu nag ëllëg nga war a indiwaat weneen yoon pour ñaanlu yóbbaale lépp mu gën a gaaw gën tax lu mu la laaj am na yërmande xewal dikk loolaa nga def équipe moom it docteur Wade nekk ci bu Casamance borom këru gànga Wade kasoor fu ne lañ koy lam di ko daj euh, magu mami ah mami ak kan mami kii des kooku amul bàyyi na ko wuti woon mami ko ëpp bàyyi euh, bàyyi ma Samba Diop euh, magu abi abi ak Cheikh Abdou rakku Mandaw ah, moom mi ngi ci ak ummi kan ak kan nu mu tudd nijaay Cheikh Jaxate gërëm nañ ko bu baax a Pape Diop jege sëñ Modou Karalo di ko jàppale ci liggéey bi mhm. Oumou Ndour Tektal boutique ak Dame Diop nekk fa xewal dikk loraa nga dak Tektal TV télé yemu ko fii jaajëf